Bonsoir, c'est le spectateur de la RDV. Vraiment, merci d'être ici aujourd'hui. nous ñëw ici pour faire ce li nga xamante le sénégalais nous sommes original nous sommes les valeur Nous sommes représenter aussi aujourd'hui ñu ñëw bon extraordinaire Tembo boo xamante ni waroon na ku nga nek di ko muy consommation locale ñu wara a wane lo xamanteni xamante dañu ko defaree fi ci Sénégal ànd ko ak waa Sisa production en partenariat avec euh, trading euh, euh, Fabira trading vraiment muy ben initiative bo xam c'est une première fi ci télé RDV tey jii ngeen vivre des instants vraiment très spécial en tout cas ñu ngi ciy bu baax baax di ci contane je vous rappelle que ma ngi nek nak ak sama xarit sama mag sama lépp ma war a partager ak moom tey plateau bi ñu war vraiment montrer leen tam aussi que ni y aura des stylistes yoo xam daanu ñëw fii passé aussi wan leen li nga xamante mom moom ñuy liggéey ci ay bax bax ndax xam naa ni baax baax ndakaaru la fekk bax yeen ñëpp ci bax bax ngeen di dox kon dama bëgg vraiment ngeen tatchul mako bu baaxa baaxa baax mom euh, madame Mbacké Mam diara ma wara partager ak mom plateau bi aujourd'hui vraiment Mam diara no def alors chers téléspectateurs de la RDV nous euh, ngi alors Dylan présente présenter euh, soirée culturelle pour Amsolo. solo c'est la première dans l'histoire euh, ñu wax ci la dame de fer la battante la Fatou la Fabira Trading applaudissez s'il vous plaît Moi, je moom mi nga xamante promouvoir l'artisanat sénégalais en même temps consommer local rek moo ko ñor di chaque jour ci luy jëmale kanam artisan yi di len il di len won yoon wi di len jàppale pour ñuy mëna démal sen bop mu jël initiative bu rafet bi ànd ko ñun la RDV euh, en production le label Sisa Prod moom lay wo mu ñow ak ay association ak ay GIE ak ay stylistam ak ñëpp ñi nga xamante ni ay mbokam la ñëw soutenir ko ci bis bi tay ñu ñëw ak mom euh, vraiment passer une très belle soirée culturelle ak autorité yi nga xamante ni nii ñëw nañu wuy si ñu fi euh, ci kanam tuuti sax dinañ jall ci seen tour bu soobee yalla alors avec vos applaudissements j'appelle ma plus que sœur Fabira Trading des applaudissements pour Fabira Fabira, c'est la lionne du consommation locale. En tout cas, merci d'être ici. Big Nenchi Boubachabar Nimouidef, Limouidef le Sénégal, du représente le Sénégal aussi. Partout dans le monde, tu foire international, Ngani Fabira. Fabira, tu événementiel. Fabira, tu le lo xamanteni du Fussel de bi du Sénégal. En tout cas, des applaudissements encore à l'endroit de cette lionne au nom de Fabira. Merci d'être ici. Fabira, Ngedil, ce micro voilà la battante, la baronne du consommé local, la baronne du stylisme, la vraie battante. Pourquoi je l'appelle la vraie battante Parce que tout le temps, elle met son temps, son énergie pour soutenir la promotion de l'artisanat sénégalais. Elle, pourquoi je l'adore, pourquoi je l'admire C'est une femme vraiment qui a un cœur qui est très généreuse. di l'appelle artisan

ak vraiment yan jéego la ci dox ba agsi fi ñu soga démarrer la soirée en beauté avec vous. Euh, di content top ci euh, say kàddu ma ngi nuyu aussi euh, ñi fi teew ñëpp di len gërëm ci sen teewaay di gërëm aussi sama styliste yi ak GIE yi fi tew yep ma ngi len di gërëm di len sante donc yakarna dañ fi tew pour faire la promotion du consommé local pour ku ci nek rek mën wane li comme ça Sénégal ak euh, waa bitim réew xam lu sénégalais di def. dama nga wax exactement Fabira Trading c'est quoi lan lañ fay def ak euh, euh, exactement pour lan Fabira Trading dañ créé pour la promotion du consommé local di def aussi événementiel ak des expos donc.

Euh, yu nekk wakam, di def ay euh, liggéey yu yu yu def céréales di def aussi ay euh, def di def produits yu baax donc ànd aussi ak waa GIE vraiment Kër di def bu rafet vraiment di jus locaux jus yu jus yu aussi ak suñu sponsor yu nga comme Sénélec euh, Salama Voyage Salama Voyage faut que wax ci tout parce que dafa nek agence ba nga xam ñun artisans yi suñuy voyager dañuy bëgg toujours am billet yu yomb parce que dañuy bëgg def moindre coût ci suñu ay voyage donc ñu ci jappalé bu baaxa baax ñu ngi leen di remercier de passage ande si aussi ak wa Sénélec euh, pour euh, woyofal bi nga xamné artisans yi mom la utiliser ande si aussi ak wa Caakiri kii fly euh, noterie je pense di def ay rouille et tout ànd si aussi ak euh, yenen styliste yu keur Massar ñom Ousmane Cissé Rokoya Couture euh, Ibou Dem jamalay couture aussi papalaay c'est que bép artisan dal yu nga xam ñu ngi ci Sénégal fi ñu len di promouvoir affaire bi nak dafa dafa dañ ko créer ni rek une première mais définitivement, naa ko parce que artisan un peu partout dans le Sénégal dit euh, def ay y aura fait merci beaucoup. alors sans plus tarder nous allons introduire euh, une chanteuse qui s'appelle Mariama. tas nga sama yaakar nga dem daal bàyyi ma eh lii metti na tas nga sama yaakaar nga dem daal bàyyi ma eh, eh, eh lii merci beaucoup. Merci des applaudissements, s'il vous plaît. Merci vraiment, ça fait plaisir. Merci Marem Gom, elle est de Durbel, vraiment. Elle est très spéciale. Une découverte aussi de la musique sénégalaise. En tout cas, merci. Elle mérite encore une fois des applaudissements, s'il vous plaît. dem ma bëgg ñëpp dem Ibou dem a des applaudissements pour moi Vraiment, xale baa ngoog Ibou en tout cas merci Goné gi nga xamante ni boo ubbee xol bi ay machine nga fait fekk ñu tegaloo xolam bi boko ko ay machine a ciy tegaloo puso da koo jama jama jama jam ba yépp bënn Ibrahima Dème merci beaucoup nga jël micro bi nga jël micro bi voilà en tout cas DJ bu féké ni baxna pour vous. su baaxee ñu daal di àndandoo léegi mu wan lu mu liggéey léegi léegi léegi léegi Ibrahima Dem boroom Kër masaar noo def. sant yàlla alhamdulilah. mbaa lépp a ngi dox. waaw maa ngi sant yàlla alhamdulilah. gars yi nee nañ yaay toj Kër masaar ah waaw waxuma ko nit ñee ko wax. ñoo ko wax. te aussi yaakaar naa ni senegal lañu nekk. Ah. te senegal ku ko xam-xam ni nekkul dëkku tricherie yi. te ku ñëpp tufli nga tooy. mi ngi noonu tàccul leen ma Ibrahima may gis. Ibrahima xam naa tey di nga toj fii nga xamante ni mooy euh, fashion euh, Korité ñu wax fi nag consommer local. euh, avant tout damay remercier euh, ñi def déplacement bi ñëw fii parce que dëgg la xam nañ ni jot amul fenn kon bok bala dara di xew damay remercier ñi def sen déplacement ñew fi tok durant tout ce temps. Alors sans plus tarder, on va accueillir les, les, les mannequins plus tôt. Oh, My time. amor e idlozi livukile masibuyele emakhaya uphelele iyo En tout cas, vraiment, merci encore des applaudissements, s'il vous plaît, pour Ibrahima. VIP. vraiment démontrer que ni Ibrahima VIP VIP deug moy yow. Yow découverte découverte. Comme Ibrahima photo ak ñom nous and ak ñom nga tok Ibrahima plateau madame Baké. Des applaudissements encore pour l'enfancerie de Kermassar kii mooy borom VIP couture xol bi boo ko ubbee wax naa ko sànq ay machine la ci tegale ba mu fees dell pousse yi dañ koo jam bam sonn madame Mbacke Ibrahim. Ngok. waaw Ibrahima waaw man li ma gis fii tey yéeme na de nan la la inspiration bi dikkee. waaw dëgg la euh, mën nañ ne ku nekk ci benn milieu di ci liggéey la woo rek bu fekkente ni wóolu nga sa bopp amoo benn droit titre j'ai beaucoup bossé pour obtenir ça. tu leen lii j'ai beaucoup bossé. kii daal liggéey allah. waa yow Ibrahima xam naa ne yaay borom mais man li ma soxal modèle fan la lay fekk adresse exacte bi ak sa numéro de téléphone pour client yi nga xamante ni actuellement ñu ngi lay suivre te bëgg ci rafet yi may sant aussi wa keur Massar bu baax parce que bàyyi nañu seen yitte yépp ñëw fi ma ngi sante suma famille suma yaay sumay mak wax dëgg yalla ngoy mama Pap Samba Mamour sama grand yi ñom Pa ñay franchement aw ma seen fay parce que dañoo bàyyi seen yitte yépp ñëw même sama ay goro ñi ngi fi ah muy remercier bu baax aussi sama soxna parce que tégatuma bëtt bo ba léegi ñi ngi nekk ci liggéey bi tout ça ma ngi koy remercier bu baax diko ko fi

la création pour Medina il qui ne risque rien n'a rien aujourd'hui vraiment tu l'as parce qu'il a risqué madame man xam nga ci a chorégraphie bi ma ci vraiment c'est trop magnifique Machallah, des applaudissements s'il vous plaît. Voilà toujours des instants avec ta euh, Fana Création qui vraiment esprit bi qui yor créé original ñu ko en tout cas vraiment gàcce gàllaama yow C'est liggéey c'est na allah set na c'est fil nice c'est say toqi c'est rafet c'est dama dem Mbàkke ku waxal rek ma a introduire nga ni ma dem Mbacke mënoo defar li ba pare nag daal di ñëw noppi Fana jëlal micro bi tey wax dee ñu commentéeral may gis. asalaamaaleykum maa ngi yàlla yi waaye xoolal ma lii macha waa bii moom mooy ban Fana. demi saison bi teg manto bi ci kawam. bu gën a macha allah comme que tàng rek bu a def lu gën a ànd ak tàggaay bi. madame Mbacke lii. lépp consommé macha allah vraiment li mu sol rafet na moom aussi macha allah. waaw xam rek da ngay estimé quoi. da xool nu mu gën a oyofee rek nga génne ko. mais sa rose allah di sant bu baax a baax. macha allah de moom dañ koo créé ci kaw ba ci suuf.

xoolal ma lii ci ay couple waa ji da nga koo solal ba ku àndal nga ni kooku la kii mën naa yor ñeenti jabar ah. ah des applaudissements ñu dugg daal di fël-fëlaale vraiment spectateurs yi nga xamante ni ñu di jàkkaarloo ak euh, télé bi ñu daal di janoo ak ñoom gis li ñu def nga daal di dem ànd ak ñoom nga def photo de famille pour un peu li les moments boo paree nga daal di ñëw fekkat ñu ci plateau bi en tout cas madame Mbacké consommation locale s'il vous plaît vos applaudissements pour l'encourager voilà c'est Fana Création avec euh, ses modèles et ses mannequins ñu daddy, new ñëw ma la sama xarit sama mag sama tata mu daal di waxtaan ak yow poser quelques questions tel micro bi Fana Création ce tour de dëgg la maa ngi tudd maa asalaamaaleykum maa ngi tudd Sarr ñu may woowe Lamine léegi naa yow yaay borom Medina. waaw pour l'instant moom maay borom Medina moom. fan nga ko teg li nga wax nii. waa ci bëgg li may def rek mën ko. waaw di gën a nag jàngaat ba ci kanam a kanam a allah. non man dinaa ko confirmer parce que li ma gis tey séduire na macha allah kon boo nee yaay borom dañ ko war a gëm waaye euh, li ci gën a am solo mooy euh, li nga def léegi nii nit ñi apprécier nañ ko mais tey jii ku ko bëgg a am fan la lay fekk ci Medina ak sa numéro de téléphone. waaw lii ku ko bëgg am da ngay ñëw Médina rue 7 angle 12 et 8 nga laajte Fana création Lamine Naar bi moo gën a siiw sax boo ko rek sama numéro téléphone c'est 77 431 95 65. te defaguñu dara c'est le début li ci des mi ngi suñu kanam incha allah. incha allah rabbi ngi ñaanal euh, ñëpp ci bonne continuation pour tout le monde incha

Euh, ñu koy mais di woowaale aussi Fabira sur la scène parce que dañ ko fi soxla en tant que consultante mu ñëw vraiment décortiquer ñu li nga xamante ne nii la ado liguey lu rafet li nga xam mom ngeen gis ñu exposer ko fii table kon nak euh, on appelle ado sur la scène et madame Fabira de Fabira Trading. liguey bu am solo bi nga xamante mom ngeen di def ba Sénégal ñep ragné ko ndax kep ku ñu ragné fi ci Sénégal c'est parce que vraiment de nga prouver li nga defal Sénégal créer vraiment ce label bopp yor sa entreprise bo xamanteni partout dans le monde fo dem da représenter le Sénégal dignement en tout cas lolu mérité nga ay nga lama mérité nga vraiment public bi fi tok ak ñi lay sétane ñu tàccu le bu baax encore une fois madame Baké. alors Fabira euh, Ado da fay euh, yëngu ci lépp lu jëm ci walu art gis na mu exposer fi ay bijoux gis également lépp lu nga xamantene vraiment dafa am ben touche originale bu nga xamantene ni euh man xamna ne ma ci doy pour nga décortiquer mako mais aussi en présence de Ado bien évidemment Ado on t'appelle ici. Achetez des applaudissements pour Ado s'il vous plaît. Le voilà le grand monsieur de l'art. tàccul len ma Ado. vraiment ci liggéey bu rafet bu mu def. alors Ado dama lay bàyyi ak Fabira Fabira nak foog nga jóg dank ñëw ci table bi décortiquer ni li nga xamante ne moom la ado liggéey ndax ñun xamuñu ci dara mais yow sa domaine d'activité la comme ça ngeen expliquer ñu ñu gën a comprendre ñoom li ñu liggéey mooy lan art bi ban art ban façon art la exactement. donc ado maa ngi lay nuyu. fay naa la sama jigéen. waaw gis nañu sa liggéey bu rafet bii nga def ci ay euh, tableau ñu bëgg nga wax ci tuuti wax wax ci sénégalais yi ni nga ko liggéeyee ak euh, ni nga koy defaree ak yow yaay kan Ado y nak ay artisans ensemble des jeunes artisans yi nek manam Wakam ñoko Ils ñu liggéey ko gis nañu ne ay tableau yu rafet collier yi aussi je pense que yow ya yow indi et c'est très beau mhm. di euh, wo sénégalais yépp ñuy euh, utiliser produit Sénégal parce que yi dafa mhm. bon dama gis ni Li. ñu ko daan takk bëreetul xanaa étranger yi ak étrangère yi ñoo koy takk souvent mais dama bëgg sama siste yi sama jigéen ñi ñoom it ñi koy takk parce que jàkk la boo xam ne rafet na macha allah surtout soo solee yére olof yi yaakaar na voilà. waa ñu bëggoon nga wax ñu sa adresse ak ku la bëgg a euh, gis parce que lii dafa rafetan ci biir kër. waaw waaw rafet na si biir kër moom parce que bant bi fii la jóge lépp fii lañ ko defaree. ça sama adresse bi numéro de numéro téléphone 77 123 19 55 route du monument Ado Adama. Merci à toi encore une fois, Ado Adama. Sans plus tarder, nous allons recevoir Dr Malik Diop de l'ACPEX. qui' appelé artisan yi qui qui bonsoir alors nous vous souhaitons la bienvenue di la wax de la nga dal ci plateau bi nga xamante ne mën parce que ce bu rafet bi nga xamante ne yaa koy def milieu artisanal bi ak exportation bi motivé la battante la brave femme Fabira Moi, mi nga aussi dafay faire les yi ci la promotion de de l'artisanat sénégalais et le consommé local jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa di profiter ci occasion parce que ñi ngi ci wéru sel di ñaan yalla lepp lo xamné doomu ak bitim rew ñi julit ñaan ci wi euh, ci lu def mu euh, dal ci doomu ak ci euh, di plaisir la pour plusieurs raisons parce que vous ngi wax

bu baax concept bi parce que bu ñu jëlee réew mu mel Sénégal wala bitim réew sax mën nañ ne artisan yi c'est la majeure partie de ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey parce que lépp loo gis en réalité c'est de l'artisanat maintenant artisanat dafa dem dafa toll foo xam ne yenn réew yi dañ ko développer d'une certaine manière ba artisanat ñu professionnaliser ko ñun nag foofu la ñu war a yegg tey jii nii koo xam ne certificat la amone wala euh, BPC e nga defal ko formation 2 ans bob dafa na naan ah man de électricien bâtiment électricien bâtiment den ko la ngeen gisse fépp ñi ngi tabax koku électricien bâtiment foko yobbu boko boo bâtiment ci démarrage ba fin bi dina mën liggéey bu fekkee ne amul liggéey formel mënul liggéeyal keneen mën na demal boppam donc c'est moom mooy objectif mhm. et euh, vraiment formation professionnelle mais il faut que ku ci est-ce que tu veux dans le cadre de la production Ou mhm. bëgg da nga bëgg mhm. ne master tok c'est c'est une question yo xamné war nañ ko poser suñ doomu Sénégal yi tamit ku si nekk nga xam yow lan nga wara def. donc merci beaucoup ngeen tatchul mako bu baax a baax a merci docteur monsieur le DG de l'ASAPEX en tout cas merci beaucoup bég nañ ci yow sénégalais yi bég nañ ci yow artisans yi aussi bég nañ ci yow bu baax a ñu tatchul mako mu ñëw togat ci place am janoo ak ñun ñu wéyale euh, daal di man ak sama mag madame Mbacké aca Ousmane Cissé Cissé njar meew yaa ngi may fàttali Mor ci mbaxane ma ne ko mu ngi may fàttali moor ba ci mbaxane mbaa yéen a ngi fàttaliku moor ba jaaral nii Ousmane sa mbaxane baax na sa ñetti morso baax na ak si toog Ousmane Ousmane jëlal sa micro jëlal sa micro bi ñu ñu pelloo man ak yow balaa dara rek ñu gis mannequin yi ak say réalisation ñu soog a ñëw ci waxtaan bi parce que man moom dama yàkkamti moom comme dañ ñuy woo dañ ñu ne ay artistes ñoom fi daje te dañuy exposé ay art ñu ne pourquoi pas ñu xool li nekk ci Afrique ci boppam jéem liggéey ci loolu bañ a topp daamina bi chaque jour rek moo tax ñu jël mbasin parce que nii ak ay vax découpé ko moom. Ousmane sa fant baax na sa fant gis naa ko baax na lool sax. waaw ah, moo tudd nan Ousmane. waaw bii aussi Obasanjo la simple rek mbasin la vax lañ ci def ni travaillé ko def ci tuuti fil rek mais lépp daal. des applaudissements s'il vous plaît ñu tàccu lii muy riir nee toq kii la ci def rek. da ko cay toq nii rek fas yéene fël-fëlaale gone yu góor xol leen loolu ci Obasanjo waaye xoolal lii ci robb Ousmane lii robb la wala. lii mais lépp daal ci rek lañ si def. defuñ si ñaar macha allah ay toq daamine rek la teg na loxo ba ca dënn ba xanaa li nga fa dafa baax am na ñoo xam nee nañ dañuy def ay ay climatiseur ci kii bi maa ko dégg Mbàkke waa ji ni day clim yëf yi ndax da nga koo kilim waaye ji teg na ci loxo bi ci dënd ba. waaye da ciy <laughs> na Maodo Mbacke. waaw lii macha allah. loolu la aar la ñu wax rek. ñu fëlli si aar bi rek quoi bañ a daamine dañuy daamine nag mais ñu def rek comme jàppale artistes yi nga xam ne dañuy exposé aussi. multicolore bi ciy nekk moom lan la noonu. loolu tissu la vax la. la waaw vax la. macha allah. Ousmane waaw ah, bii aussi mbasin la même vaccin yi xool vaccin yi nga xam ne daal dina leer dina am mujj ànd ak yére bi ba ba muy yàqu. Ah, aja tàccu lii ci bëla fii mu kenn ci bëla ka baax Ousmane ku mu solal nga fël-fëlaale ku mu solal nga cakas-cakas yi ku mu solal nga daagu xoolal gone gi ni muy daagoo macha allah Ousmane ma lii bu baax a baax. bi aussi même chose grand boubou la dañoo wër rek ay vax yi nga xam ne dinañ si mën a motif yu rafet ñu si mën a génnee décorer ko si lépp daal 100 pour cent vax la amul daamine bu bëri. macha allah. waaye Ousmane sa jeune soxor na de. xoolal gone gi di fël mi ngi fël de xoolal fëlal. macha allah. acca tàccu leen ko ci li mu fël may gis. bii docteur Malick la tudd tàccu leen ci docteur Malick bi may gis. <laughs> kokot fi mu ne nii yaa ngi kontaan. gis nga gone yi li ñuy kokot kokot yi monsieur le DG de CISA ñu ngi bég ci moom Alassane Niass merci d'être ici aca tàccu leen lii may xool tàccu leen duggandoo bi Ousmane nga daal di jóg ànd ak ñoom jël photo de famille ak ñoom gis lu rafet li nga liggéey waaye di na xaar tuuti man damaa bëggoon bala moo jóg dem jëf photo de famille bi mu jox ñu adresse am ak numéro de téléphone mu ànd ak ñoom fël fëlaale day fëlaaleeg ñoom rek waaw man maa ngi nekk cité Aynou si boulevard bu mag bi foofu sama numéro mooy 77 234 04 45 atelier mu ngi tudd Roqee Couture waaw jërë jëf waaw guddi neex na ba mais waa gis nga dañoo kontaan dañoo kontaan mais avant ñuy woo Papa Laye Kër Massar na préparé wu ñu ngi woo sunu maman maman Dado fii si plateau bi maman Dado. tul ma sama yaay maman Dado may gis ba keroog muy yéeg. kii moo jàppale Fabira moog docteur yaay booy kaay indi loxo bi. acca. <laughs> maman ñu ngi lay dalal jàmm. voilà jëlal sa micro. sant Serigne Touba. sant sama ñaari waajur santit sama borom kër bi ma bàyyi ba ma mën fee ñëw teew fi boo ma laajee nag ci mbirum artisanal danaa sawar pour tontu ci parce que dama cee yàgg duma ci gan depuis 1985 maa ngi def foire yi di dem di ñëw waaye ñun artisan yi day docteur Malick Diop dañ lay ñaanal nga nekk suñu ministre ndax boo ko nekkee rek ñu avancé dëgg la tàccu leen lii. boo nekkee ministre yàlla na doon ministre. <laughs> dañ ko ci yàlla na doon ministre. yàlla na ko doon. lépp lu ma fi andi. Mhm. maa ko liggéey te man formé naa plus de dix personnes. Mhm. yoo xam ne kenn ku ci nekk beru nga. Mhm. ba yor sa place. macha allah. kon lii may wax lu ma xam la. kon yow dañ lay ñaanal gën laa ñaanal gën laa ñaanal nga yàgg fi loolu yàgg di bunge artisan yi. amiin kon sans plus tarder merci beaucoup. tàccul leen ma ko moom Papa Laye borom Kër Massar. ay waay daa couple waay tàccul leen ci couple wuy dañu koy gunge ah li rafet na li moom mii nekkate du wéet waa mais fi nga fëlee ci am na maanaam Papa Laye yaa bëri feem xale bu am jom ngi nii borom Kër ngi macha allah macha allah ñu gis boog Papa Laye daal mooy yëfi ah macha allah daal moo ko yor macha allah waaye yéeg nga accompagner ñu tuuti. voilà dañuy fekk fii ci kaw Papa Laye. voilà leen ma Papa bu baax a baax a baax. maa ngi lay siyaare Papa Laye. ñu ngi lay ziar bu wér a wér papa papa du ma ci laay bi da nga koy dindi def papa feem. ace kon dañuy daal di dem tuuti ñu xool li nga xamante ni moom la euh, Papa liggéey. gone Kër Massar gi daal moo bëri feem. macha allah leen ko may gis. Papa Laye dee ko commenté may gis bii mooy ban. waaw bii mooy yegg si leen. bi mooy yegg si leen xam nga teew sa xiir. mais bi day naan yegg si leen la quoi. macha allah waaw bi maa ngi ko travaillé ci borode. waaw en plus def si bio def ci til. waaw xam nga rek defar ba mu baax quoi. kii palmaan lañ koy wax palmaan la. waaw palmaan gis nga dañ ko dañ ko. musóor gone yi. waaw kii dañ ko def 217 si baat bi. macha allah xam nga rek def simplicité. ak tuuti si maas yi quoi yampi rax si tuuti til si biir sànni si ay per cristal yaa ma gën a xam. Ah, yow xanaa ah, lii bu baax may gis s'il vous plaît. ma papa lay. macha allah. lu ne ca dënn ba. waaw gis nga kii. soie la. choix la mais dañ ko créé vaccin si biir dënd bi waaw xam nga rek affaire moom ay création lañ macha allah waaw moo tax ñu ne xaar nañ ko génnee fii te xam nga ñun dañoo bëgg simplicité waaw moo chaque jour rek ñu jéem a innové wu di yokk suñu xam-xam waaw moo tax ñu defar lii quoi waay soxor waaw kii vraiment maa ngi ko liggéey ci mbasin en plus def ko xam nga rek mooy val palman bi gars yi xewal léegi waaw moom lañ ko travaillé macha allah waaw def ko kol ba paré fëgg ci ay per tuuti rek daw génn noonu lañ ko liggéeyee daal. ba pare man dama seetlu dara. daal ay mannequin yu féroce rek laa gis. waaw waaw waaw vraiment c'est des mannequins dignes de ce nom quand macha allah. Ah, c'est des mannequins de ce nom vraiment mention spéciale aussi à eux. Euh, di remercier également délégation bi nga xamante ne nii ñoo gunge mama Denise fàttewuñu. Aïcha fàtte wu ñu ñoom Sidi fàtte wu ñu suñu tailleur yu baax yee nga xamante ne moom ma dagal li ma sol ma nga ne toog. waaw. ayca tàccul leen ma Papa Laay bi mooy ban. bii nag soit lañ ko liggéeyee. mais xam nga rek chaque jour ay tamit ay innovation yu bees. Ah, mais Papa Laay bi fu la neex nga yóbbu madame Mbacké. <laughs> non madame Mbacke am na bi mu ko tuddee. ah waaw am na bu mu ko tuddee boobu moo ngi ñëw. mu ngi ñëw te xam naa bu ñëwee dina def ba incha allah. bii xanaa kokot nga ko tuddee. waaw kii xam nga rek mbasin la. te kii xam nga yow di jëta yow laa ko tuddee. man mii waaw dama ko bëgg dama bëgg booy dem nga yóbbaaleel ko. ah ah, ah bii day dugg na ma. madame Mbacke nii daal nii daal laa def. waaw bii faaw ma jox ko Mame Diarra

eh korité validé Li mooy korité validé Bi, tudde naa ko korité validé Bi mooy korité validé Papa Laye <laughs> kii moom vraiment palman la ah ñoo ko joobee Petit Fil macha allah xam gars yi dañoo xam Petit Fil dafa dee Wa, gif nga comme ni ma la nooxee rek chaque jour gars yi innové wu macha allah waaw di def seen création macha allah waaw def benn toq taay maam bu baax ak benn jupe fente derrière bi dóor ci côté gi daw génn li ngeen bëgg ci toq de madame Mbacke dinañ ma ko wax ci moom la wala ci Papa la. waaw ci mannequin bi la wala ci yow la. sama copain moom tamit dafa dégg. macha allah dafa la mu wëndeelu. yaa ngi may fàttali wëndeelul. waaw gis may gis. mais mère beeg may daj ji moom te mu la macha oo. Oh. acca kon macha oo. Oh. deggal ma lii. waaw vraiment deggal ma lii. kii dañoo def jardinière. ba paré travailler souf bi. dugal ci ay jour baat bi xam nga rek simplicité. door ci ay bouton. def seen jaxas yu ba waaw gi def suñu benn jaxas bu rar ni rek. ak jardinière bi mom no xawma ki bobu waaw ko xama rek. bo moy bu laal bu jégué bul laal bul jóge waaw moo ngoog <laughs> macha allah. waaw papa laay bi maman Fabira la ko tuddee Fabira moom laa ko tuddee. ah waay Fabira jëlal bi ngoog Fabira ngoog tàccu leen ci lii. <laughs> tàccu leen gis nga nii def. waa def mais man kay ñu ngi fashion ah. waa gis nga patch. macha allah. laal ci suuf rek comme ni wax rek simple di de. comme que gars yi moom. ñu bëgg lu simple. acca ñoom ñëpp ñu daal di dugg fël fëlaale.

77. 77. 788. de 788. 788. 788. 42. 42. 22. alors ñu ngi euh, Fabira sur la scène. merci euh, beaucoup. di en même temps Gibi bu nekk Soumbédioune parce que mom tamit comme dafa def exposition. ndax euh, buñu Fabira vraiment mon moy expert bi en la matière.

di si gàddu ceinture aussi ñu koy takk donc euh, jibi ñu ngi lay laaj noo defaree sa bagage yi sa tour ak euh, fi nga nekk. maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tour ak sa sant man maa ngi nekk village artisanal Soumbédioune di liggéey ay sac croco ak serpent ak cuir simple bu ko daal la tout lañu liggéey. waa gis nañ ne lii sac la mu rafet lool ñu bëggoon la laaj euh, lan nan nga ko liggéeyee. lépp ñu ngi ko liggéeyee ak loxo. village artisanal Soumbédioune lañ ko liggéeyee ki saak bi ni croco lépp biir ak ci biti yëpp ak taat bi waaw gis nañu aussi nga defar ay porte monnaie muy pochette yu rafet yu ñu ràññee aussi bitim réew di gis euh, européens yi di ko utiliser fii aussi je pense que ñi xam der xam lu baax bëgg lu baax ñi ngi ciy ñi ñi ngi ciy jënd pochette bi ñi ngi ko liggéeyee ci biir mi ngi doon deru xar kaw gi moom mooy doon pot croco am na pot aussi serpent lépp ñu koy liggéey suñu loxo village artisanal Soumbédioune foofu lañ nekk chaque jour fa la ñu xëy ba heure ci jot ñu door a wàcc ñibbiwaat ba subaat ñu door a dellusiwaat. waa gàcce ngalaama Jibi Mbow ñi ngi gis aussi nga defar ay dàll soulier ak euh, saak pour góor donc ñuy wax ne rek yënguwoo kese ci euh, mbirum jigéen yaa ngi yëngu aussi euh, ci ay produits pour góor donc ñu la doon laaj aussi noo ko liggéeyee. même saa yu góor ñu ngi ko liggéey lépp ak suñu loxo ci village artisanal Soumbédioune ak ay dal aussi yëpp yu góor ak ceinture ak portefeuille pour góor aussi lepp lañ koy liggéey ak suñu loxo village artisanal Soumbédioune kon jibi ñu ngi lay gërëm di la sant di la laaj aussi sa adresse tay ku bëggoon ñëw jënd sac li ni mel wala pochette wala ceinture fan la lay fekk ak sa numéro téléphone ak adresse bi man maa ngi liggéey village artisanal Soumbédioune numéro cantine 144 numéro téléphone 77

ay euh, sunguf defar aussi ay euh, sànqal donc ñu bëgg ko laaj dal ay produit nan la ko defaree ak euh, fi mu bëgg yegg quand même alaykum suñu produit yi yang yàgg nañ ci yëngatu defe naa depuis 2000 ñu ngi ci yëngatu suñu groupement yi vraiment jigen ñi ay jambar lañ dañuy defar ay araw dañuy defar caakri ñu xamné araw bu wow bi ñuy defar war nañ si mëna defar di ko suñu bop di jox xale yi ñuy lekk di ko jox mag ñi ñuy lekk ndax li ngay liggéey boo koy dundee rek dina am njariñ kon nag nga xam ne ñu nit ñu ngi innover tuuti tuuti loolu yëpp si jàppale la di gërëm nag Adja Yandeye ndax lu baax lu mu gis rek dugal ñu si biir ndax tey moo ñu indil Fabira yi nga xam ne moom it dafa taxaw rek pour jàppale jigéen ñi li ñu wax nii tey suñu xel dal na fi ngeen bëgg a yegg yal na leen fa yàlla yeggale tàccu bu baax a baax waa GIE boo ko xool jërëjëf suñu suñu adresse wakaam la suñu adresse wakaam lañ ne mhm. Touba wakaam GIE boo ko xool merci beaucoup GIE boo ko xool waa GIE Rahma bu Kër Massar di gërëm premièrement sama sœur bi Fatou Dramé Fabira Fashion moom mi ñu jàppale bañ egsi fii ñu ngi yëngu ci céréales locales ak sirop ak jus ñun nak suñu produit produits local ñu ko les ci maam yaay bàjjan ak tante ah déggal lolu lolu neexna kon dee utiliser sankalu waa Rahma Rahma waaw ay woote ci 577 532 1565 65 wala 77 577 95 29

Tu fais bi en fait notre bi da ngay jël rek tout est fait Amne na amne am na amne muscade amne sucre, amne cannelle amne arôme vanille vraiment tout li li jigéen ñi def yëpp daan def di jàmba di def yëpp jaratu ko fi soo ñëwee soo jëlee rek da ngay def sa kii rek def sa ndox rek rek yëngal rek def sa caakri muy muy nga wala nga def sa laax muy laaxu et avons fait une promotion spéciale promotion aussi Corité bi C'est ce que ñu ñëwoon pour présenter et vraiment actuellement nous si euh, grande surface pratiquement une bonne partie des grandes surfaces Le fa. numéro téléphone c'est le 33 959 37 46 Mbao Villeneuve numéro numéro euh, cellulaire bi 77 394. 40 merci encore une fois merci. Euh, ni nga ko waxee rek euh, ci euh, caakiri lañ daan gis ci ay pot tey nga defal ñu ci ngalax ana laay création tàccul leen ma des applaudissements pour laay s'il vous plaît waaw kii c'est un grand monsieur ah kii mooy càmmiñu Fabira kii mooy tàccul leen ma Fabira macha allah. ñooy ànd di dem ci foire yi dem nañ ci foire internationale yi. macha allah grand live yi ñooy dem ci marché yi fu mu gën a laay ma jox kàddu gi. waaw asalaamaaleykum mbooloo bi asalaamaaleykum waa RDV maa ngi nuy kenn ku ne si turam ak santam di nuyu sama yaay ji Daado Thiam moom tamit jàmbaar la ci tool bi. sama jigéen nag sama jigéen moom euh, yàlla dafa dogal ñu daje Astana Kazakhstan. ci encadrement wu ñu bax ñi DG Pape Malick Diop wa ASAPEX ñu dem fa pour exposition universelle ñu mu jaaré ci président Maguette Mbow président Maguette Mbow tan six personnes ma bokk ci ñu dem fa pour exposer mais yemuñu ci ci lool dañ doon jaay destination Sénégal def nañ fa ñetti défilé man ak fa ñaari ci biir expo bi jël ay kazak solo leen yëre africain jël xam nga expo universelle waa Chine dañuy ñëw waa Espagne dañuy ñëw Thaïlande ñëppay dañuy ñëw ñëw ñëpp seen hôtesse yi ñu recruter ñu recruter leen solo leen ay yëre africain def foofu beneen fashion. léegi nag euh, man laay design dem fi toog ci euh, turu benn euh, GIE ba ma bokk mooy GIE Teinture Couture Village Ensemble Soumbédioune ñu nekk village mu nekk premier label boo xamante ni moom moo moom moo njëkk a judd si artisanat si Sénégal premier marché boobu ñu fa nekk di dafa def saagu der yu rafet yi tëgg yaa ngi fa. sculpteur yaa fa ñawkat yaa ngi fa le nag comme que ñun dañu xam plus sur l'art mota tay sama défilé day ñëw ci ñaari côté euh, wa association bi indi nañu collection ma décorété léegi man lay des design ma yok ci exclusivité ci lo xamanteni ni comme que ñun dañuy xeex importation dama jël produit importé bi recycler ko jini diko recycler diko jox ay vie de différents ayca merci beaucoup kon top c'est parti pour euh, la Création. Laye moo fël fii Laye génn fii. suñu benn membre association moo ko defar mu ngi tudd euh, Ndeye Amy Dia mu def tendance korité def brodem bu baax mën na kenn càkkat yi sol ko vraiment mucc ay pour korité bi. acca macha allah ci man mannequin yu càkkat yi. fi mu ne nii moom yéen a ngi mel ne tàngal. bu gars yi importé seen produit dama koy nationaliser transformé ko def si sunu marque mun koo jaayaat mu gënaat dëkk bi. man de namatuma Europe namatuma Zara. mais laay bii eh, est-ce que est-ce que est-ce que bu nekkul soirée mën na génn moom bii. waaw noo kii xam nga pour guddi la. waaw pour wane ne rek ne bu ñu li ñu jéggaane ay Zara ak yooyu. mën nañu indi autre chose que li xam ci traditionnel. maanaam bu modernité c'est possible. dëgg neexul. Ah. toujours des instants avec euh, laay tàccu leen may gis xoolal ki tamit euh, membre association bi moo ko liggéey ko boole ko pour bokk rek euh, promotion Made Sénégal. def tay baasam bu baax xam oh, allah des applaudissements s'il vous plaît. waaw wane sunu savoir faire. lépp made in Sénégal lépp ci biir dëkk bi lañ ko defaree. Fabira reetaan na ñu jël tubay jean. Fabi li mooy consommation locale dugal si cravate. génn ko si beneen angle. waa dégg nga ñu xamee woon cravate tey ñu gis ko si beneen angle. dëkk cravate ci zip la gën rafet. lii foor na. Ah, allah. Mhm. sama ah, yaay booy ndeyaaree na. yaay sa xol sedd na. dina macha allah. Ndeye Amy Dia moo fi jaarati. macha allah borom Soumbédioune borom villa arsenal borom Dubaay Ndeye Amy te macha allah nag waa village ay jàmbaar lañu. ñu ngi Dubaay ñu ngi Espagne ñu ngi Asia ñu ngi États-Unis lépp rek pour promouvoir euh, artisanat bu Sénégal. nee naa leen ku bëgg sa Asapex. waaw original Tengo cravate en taille Achetez des applaudissements s'il vous plaît, Maïgis. Il faut les encourager vraiment, c'était pas facile. yombul warhol xoolal ma bii tàccu leen lii may recyclage jean là, ñu dugal si vax Machallah. à l'origine pantalon la woon lii c'est si pantalon bi la laa def si dënn bi Ouais, déggal ma ben top ak

Yewwi Laay muy dem. Euh, comme on a l'habitude de le faire rek dañ koy naaj euh, adresse am ak numéro téléphone am. Euh, mu bàyyee ñu ko ndax client yi nga xam ne ñu ngi seetaan lu rafet lii bëgg koo am. Mm. fan la ñuy jaar pour ñëw si yow. adresse euh, village bi la rek village bi boo fa duggee di nga sol yére di nga gàddu saak di nga sol dàll di nga takk bijou di nga village bi daal mooy adresse bi képp ku fa ñëw lépp loo ti bëgg ci artisanat di nga ko fa fekk maa ngi gërëm bu baax euh, sunu ministre tutelle Mamadou Talla di gërëm bu baax président chambre de ci bu Dakar di gërëm bu baax aussi DG Malick Diop di gërëm bu baax aussi sunu président Anta Fall aussi di gërëm artisan village artisanal bu Soumbédioune yëpp particulièrement sama yaay ji Dado Thiam ak concert bi nga xamante ni moom du bàyyi te ñaanuma yàlla mu bàyyi parce que tey jëlee ay artistes yu bëri l'ombre bu njëkk ay artistes mag nga doon gis si plateau yi tey ay jeune talent rek ngay ay Europe di ma toogee a tax kon nga dem rejoindre plateau bi nga photo de famille avec euh, euh, les mannequins a

yow moom mention spéciale. li li ma daj ci yow. <laughs> mer naa mer naa mer naa. Hein? ñun daal ñun ñëpp daal àndoon hein? nañu pour promouvoir le consommé local ak euh, di euh, promouvoir aussi artisan yi nekk ci dëkk bi alhamdulilah defe naa li ñu doon bëgg. Euh, mun nañu ne réussir nañ ko ñu ngi sant yàlla di gërëm GIE ñi fi nekk di gërëm.

ah affaire yi neex na neex ga nga vraiment Nous ngi di <laughs> encourager alors alors nous ngi woo euh, DJ Ange voilà. Euh, en tout cas, merci encore une fois à toutes et à tous. Ça a été un plaisir d'être ici avec vous. Euh, di gërëm aussi vraiment ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan fépp ci àdduna bi di leen bëggee di leen wax que c'est une première mais une première vraiment Bo xamante ni euh, dundalaat na képp kuy sénégalais ak foo mënti nekk bëgg nañ ci yéen bëgg ci suñu ay partenaires bëggee leen bu baax baax macha di wax mention spéciale à tous les partenaires mais mention spéciale aussi à vous vraiment le charmant public. en tout cas bég nañ ci yéen man DJ Ange di Diourbel bég naa ci yéen ñi nga xamante ni maa ngi janoo ak yéen bu baax a baax di gërëm sama soxna mam jaara yaayu Serigne Saliou ñaanal ko yàlla na ma euh, gën a nopp ma gën ko nopp muy gën di neex